possible lii ça peut plus être possible le lendemain ci laa waxtaan euh, dem nag Touba waxtaan ak samay kilifa sama kilifa yooyu woo kilifaam le frère de son père ñu waxtaan ñu tas sëy bi ci jàmm ak salaam c'était un samedi 12 mai 2024 ba ñu tasee sëy bi ci samedi boobu le dimanche le lundi les jours qui ont suivi ba mel na ku ñu rakkate message sur message daggal ndey saaga fu mu gën a mu koy def message yooyu je les muy dagg di saaga di dagg di saaga yu metti di di menacer di wax lu nekk di ma façon lu nekk daal mu ngi koy def may tiig liir message rek teg liir teg liir teg waxuma ba tey tontu une vidéo de mois ñu ma gis nga vidéo bi dinaa nangam tànn ndeyam publier ko ci ci réseau yi ma ah, ba tey waxuma dara mu et puis mu naan ma dinaa ko je vais commencer sax par envoyer ko diw ensuite ma envoyer ko diw ma ne ko ah ba tey waxuma dara de man maa ngi lire rek ma naan tekk effectivement mu mu mu envoyé ko ñooñ ba pare def ma capture wan ma message euh, message am ak ñooñ ba mu leen koy envoyé yooyu yëg elle me l'envoie par par message vue unique pensant que peut-être dama koy xool rek après mu dañ j'avais un autre téléphone parce que ba muy jógee Amérique dama àndaaloon beneen téléphone ma ko doon jël ci ma doon jël image ci foofu mu def noonu def noonu def noonu def noonu continuer continuer continuer ba à un moment daal xam xaw na arrêté elle continuer continué sur ça pendant deux semaines trois semaines noonu ci mois de mai boobu noonu yëpp juin mujj gi elle prenait d'autres numéros man damay jékki-jékki benn numéro woo ma di wax ay waxi dox ma xam ne c'est elle qui est derrière jékki-jékki nag ba affaire yi sësee ba sës xam na boobu sës na. maanaam mu jëlaat photo yooyu xam nga xam nga photo yooyu plainte woon na ma ko police parcelle ba pare mu jëlaat photo yooyu bind ci affaire yu graaw wuy dama ko def nii dama ko séquestré dama ko yóbbu alors maanaam daal def mise en scène bu danse jël ko def déposer plainte au niveau de fi may liggéeyee ci procureur bi parce que boobu sëy bi tas na mu ñu kon xaaral ma yàq ko xaaral ma tas ko heureusement que la justice bokkut ak la masse bokkut ak bërët ñëw xaaral ma yàq ko xaaral ma tas ko heureusement que la justice bokkut ak la masse bokkut ak euh, nous les téléspectateurs des réseaux et autres ñooñu loolu seen liggéey la ce sont des professionnels loo leen yóbbul xam nañ fi ñuy jaar ba xam ndax yow mii ñëw plaindre lii ngay kaas dëgg la am du dëkk mu déposé lool li mu bind noonu yëpp dem déposé ko wax boole ci photo yeeg yëpp les gens ont fait enquête déglu ma. Euh, déglu sama bon déglu chauffeur yi déglu ASP yi déglu sama collègue pharmacien boobu may wax gars yi déglu ñëpp moom ñu déglu ko les gens on fait une enquête extrêmement sérieuse ba ñu xoolee xool xam ni kii li muy wax nii invention pure et la ci kaw ba si suuf loolu ñu classé ko jëmul fenn ñu teg bon man jàpp naa ni sax calme na dina calme léegi mais elle a jamais cessé damay bloqué personne chaque jour ma bloqué numéro bu bees chaque jour ma bloqué numéro bu bees ba récemment en début octobre affaire bi mi ngi gaa mu ngi mi ngi waaja a jeex ah merci pour l'écoute en début octobre ma jékki-jékki parce que bloqué naa numéro bu ma andi ma bloqué mujj gi dama doon gis sax jékki-jékki sax gis ay jakarta man en fait di ñëw di am un comportement louche ba ma demee ba questionné leen enquête leen ñu ni ma diw moo ñuy yónni pour ñuy xool ndax yaa ngi fi ndax ñëw nga ndax dugg nga fii wala génn man leen ah comment ça wan leen ma preuve ñu wan ñu may wan ay envoi euh, orange yu ak ay yooy yoo xamante ni numéro ndaw si la moom mooy envoyé ay jakatamaan pour ñuy xool ndax maa ngi fi wala maa ngi fee mu nekk affaire bu gênant bu bizarre ba ñi may liggéey jékki-jékki naa bés rek sama assistant jékki-jékki rek ñëw ni ma ah doc man de numéro bi daf ma doon woo ku jigéen la di ma wax yu bizarre man ko ah bon ban numéro ma xool muy numéro Dieynaba ma gis ni kii naruma bàyyi mi ngi woote man bloqué naa mais fi léegi li ñu ko dese mooy di woote sama entourage et cetera. ndax comme tu te bi nga demee devant le juge est-ce que moom bi mu ñëwee taxaw. ndax comme tu te sens à l'aise de prendre une femme boo xam ne tu t'es marié avec cette personne. et yow yaakaaroon nga ne di nga njaboot ak moom yàlla weddi na sa diggante moom. nga ne da lay harcelé nga yóbbu ko devant le juge avec ses blessures qu'elle a eu ak tous les problèmes du monde qu'elle a eu ndax bëgg topp xolam bëgg ndax li nga wax jigéen bu bëgg moo koy def. jigéen bu la nobee day daw ba sonn. Mm-hmm. loo ko mënti teg da koy tegoo dékkoo ko. yow tous ce que tu as trouvé à faire. mooy mm-hmm. ne pour mu mën a débarrasser wu ci yow mu bàyyi la. li dalal sa xel mooy nga yóbbu ko police mu taxaw mm-hmm. devant le juge ñu koy jugé war a mën koo jàpp di ko incarter teg ko ci koo xam ne dund na métit yow léegi nag naka nga mën a jàngatee loolu en fait man c'est ça moom mon souci majeur parce que boo ne moo gaañ boppam dafa daanu dafa expliqué dafa lii te moom mu dem taxaw ne que am ñu génn wax la version de la famille ñoom tam am nañ ci wàll ay parents tamit am nañ ci wàll ñoom tam li ñu wax dafa leer mais yow aussi boobu ba léegi les questions. ba ma gisee nii nag affaire yi kii elle n'arrête pas mujj gi mu jël numéro privé di ma ci woo di changer voix di wax di créer di etc cetera et cetera ma xam ne lii vraiment trop c'est trop trop c'est trop te numéro privé mënoo ko bloqué am na benn week-end temps est passé en début octobre dafa numéro privé bi la jël di ma ci woo pendant plus de cinquante soixante fois en un après-midi. tëw a arrêté te numéro privé mënoo ko bloqué c' était tellement gênant j' étais très énervé ma tourné samay proche di ma wax ni man de numéro privé bi temps yi ngi may woo di jël benn voix masculine di wax ay wax après ba ma laajtee ñun ma effectivement am na application yoo xam day changer sa voix mën na la sax jox voix wu góor bu dee jigéen la ma ma dégloo loolu ma xam ni parce que après si laa ko dégluwaat ba ma dégluwee bu baax la y avait la voix masculine de mais bu ma dégluwaatee déglu bu baax ma xam ni moom la ma ni ko diw xam naa ne yow la mënoo changer sa voix wax lu ma jaaxal ba ma ko waxee loolu elle a repris sa voix normal appel booy boobu noonu bii nii ma nekk di wax nii je n'ai j'étais en train de l'enregistrer avec mon autre téléphone vocal baa ngi fii tege ba ma xamee ni nag non kii yëf fi jaral na ko lii et lii vraiment trop c'est ma dem porter pour harcèlement yi may def ma yóbbu tout ce ma me faisait tout tout man leen nag man li tax ma gën a ñëw c'est parce que dama bëgg mu may ma jàmm li laay war a suuli clamé naa ko seen ay yéen waa kër parce que jour ba balaa may dem plainte j'ai rappelé son grand frère boobu ñu naan wax ni mooy euh, nee na mooy lene doom bàyyam tu je l'ai rappelé waxaat ko ko mun ma kook ni ma grand xaar xaar maa ngi koy woo kooku woo ko ba sonn jotu ko mun ma man mii maa ngi nii di ko man ko grand boobu ba tey eeg insisté mi ngi woote mi ngi saaga mi ngi xuloo mi ngi def lu nekk mun ma non lii nag moom finalement c'est trop vraiment euh, lii à un moment foog nga jël say responsabilité aussi parce que nit ki mënoo mënuloo di la topp nii boobu ba tey il faut arrêter depuis le 12 mai yëf yi tas na mais ba tey mënul taxaw ba arrêté je suis parti euh, je suis parti porter plainte euh, ma porté ko plainte wax mandat de dépôt et cetera tout ça après. ñu téye ko euh, ba lii am ba jour jugement bi ñëw euh, ñu ñu jugé ko li ci am am ci. durant nag biñ ko téye ci procédure bu ndaw euh, boobu. am na benn xamante ne Alioune may ma tuuti ma dugg. jour jugement bi il paraît que da nga ni moom sa jabar sa ou pas. et ça c'est très très très. si moment boo xam sentir nañ ñi. que man dem naa ba toll foo xamante ni mënatuma sax bokk ak moom benn néeg ñu naan déet waaye ñu dem ba toll foo xam man mënatuma sax mu fanaan ci benn kër ma fanaan ci benn kër parce que li ma dund maa ko xam li ma gis maa ko xam. moo tax nga yóbbu ko loolu moo tax nag ba ma gisee mu continuer di toppaat di jaral di jaral muy def lu nekk en un moment c'était devenu très dangereux je craignais pour ma propre sécurité mais je craignais également pour sa sécurité à elle parce que dama ni bind ko ci papier bi bu duggee devant euh, ci police bi dañ koy tëj mais après si tu reviens nous dire autre chose que ce qu'on attend toi mooy nga toog en tant que vrai gentleman góor bu nekk gentleman en tant que médecin je précise encore une fois parce que nekkoo personne normal yow instant yi nii problème bi da nga gën a en man je me dis que tout ce que tu en train de dire wala di expliquer di enfoncer sa bopp la parce que li gën a simple boo yéegoon da ngay wax ni que carrément demain je vais prendre mon avocat mu dem devant le juge ñu annuler la plainte procédure bi annulé gel bi bu génnee mu bàyyi ma ma bàyyi ko ñu ne ci leneen su dee yaa ko dóor xayrun ñu xool justice mu def yoonam soo ko dóorul it xayrun parce que famem dinañ wax génn ndax fi mu ne nii réew mii internet moo fi xew de ku nekk da ngay yéeg di live bi nga bëggee justifier wax sa propos ba mu leer nañ ci live dugg nga bëggee tontu wax li la neex pourtant li la intéressé mooy li nga bëgg yow moom ngay topp ba mu jeex àddina du noonu des fois il faut arriver à un boo xam ne dangay def li war mooy nga retirer sa plainte nga jàll ci leneen du ñaan de rox bu ko wax mukk nekk dañ koy ñaan kenn ñaanu ko parce que problème bi moom nii la gën a concerné te moom moo fi nekk position bu gën a métti ndax gel bi mi ngi ci position de faiblesse moom dund na souffrance métit na biir sëyam coono am na ko fa topp na jëkkëram dem na ci ménage am dugg na belle famille am toroxal na boppam toppaat na waa ji tëj nañ ko ci kaso bi amaana daanu na wala dóor nga ko wala yooyu yëpp on ne parce que après on saura avec les réseaux sociaux tout ça c'est léegi nag li gën mooy li war li la wax mooy li am li nga war def mooy li nga def mooy nga annuler sa procédure de plainte bi nga jàll ci leneen dem vaquer sa occupation na nga continuer boo amee koy opérer nga opérer ko boo amee góom boo faj nga dem faj ko moo gën lii nii on a d'autres chats à waaw dëgg la mu ngi noonu ba pare Badou sax nag moo ngi gën a ñaaw parce que nit ñaa ngi fii ñëw mooy sa septième mariage xale yaa ngi fiy ñëw ku ci nekk yaa ngi am na tam waxul dara waaw mu ngi noonu kon nga retiré plainte bi rek moo gën balaa victime yi di gën a bari muy gën a ñaaw daal loolu kese la mu ngi noonu kontaan les versions ku ci nekk ñëw ba pare ku nekk avec des preuves euh, yoon mayu ko ci dëgg il n'a en aucun cas été prouvé que dam ko ko def et loolu man je di le dis aujourd'hui yéen ñëpp a ngi taxaw ci live lay waxee ci sama aqulaay taalaa laay wax man defuma ko loolu benn deuxième chose euh, ni ma nekkee victime ci yëf yi dañ ko bëgg a mais gars yi nañ def nànk gis nga góor day dund day nekk victime de violence comme jigéen nu muy nekkee victime de violence man li ma dund ci lii les message les harcèlements les woo samay collaborateurs sama famille samay entourage etc et tout c'était quelque chose de très difficile te il ku ko bu bu la neexee yow bigi wala keneen na ko minimiser mais man mi ko doon dund c'était très difficile man mi ko dund ba mu jaral ma en un moment ma sës sës sës ba dem porter plainte c'est parce que boobu sës naa mënatuma harcèlement continuer à ravager toute ma vie c'est pour cela que je dis non non c'est pour cela que non non non damay wax non non non nekkuma di victimiser. non non non damay wax li nekk sama xol. maintenant li nga bëgg bi li nga bëgg li nga bëgg li nga bëgg xam naa ko li nga bëgg xam naa ko defal naa ko li li nga bëgg. xam naa ko bëgg xam nga la. li nga bëgg noonu bu fekkee. loolu la bu fekkee nga. li nga bëgg xam naa ko defal naa ko maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw bëgg si génn foofu mu ne mais bigi pour ma tontu la ci côté boobu man ñii di wax ak yow maa la gën ko gën a yéene loolu mais seulement dafa am affaire yoo xamante ni dañ koy jaarale ci yoon muy lan bu ñu jël objectif mu génn foofu kese man en tant que tel euh, liñ ma sosal liñ ma fi waxal ah, li may def ci ay harcèlement yow bëggoon sos de yow soo ah, bëggoon sos bi jeex ak wax bi jeex soo xëyee di nga jël di nga jël benn un cinq cent mille wala dara def ko ci avocat ñu génnee ndaw si fa mu nekk yow bëggoo wax di jeex de yow soo ko bëggoon wax tamit am Mbàkke waa Mbàkke Goussa tool ak euh, yooyu. waaw mais tout ça. mais yow gis nga affaire les sept femmes du ci mës a wax parce que depuis lors maa ngi répété di répété di répété waat mais du ci mën a wax. dara ci wax dara ci wax dara ci wax question boobu laay ñëw question boobu laay ñëw question boobu laay ñëw defal nànk wax ci. defal nànk question boobu laay ñëw defal nànk question boobu laay ñëw defal nànk dama ni sos bi nga nekk di wax nii pour mu jeex ak ñàkk jeex dépendrul ci ay retirer plainte wala téye plainte xam nga ci lan la dépendre nit ku nekk ci sa aqulaay taala mu ndax lii ñuy waxal diw leer na ma ne xëy na defu ko déglu naa ñaari version yi xam naa lii wala en tout cas man awma ci lu ma leer dama ciy continuer di wax wala ma ñàkk ci continuer di wax ku nekk na def la ko xelam may ci côté boobu point final du dara maintenant je reviens aux questions de Rox Rox nee nañ dama am sept femmes et cetera Rox je fois donc ce sont des bi nga dalee say gaine ba ba léegi donc mës nga ko dóor. mësu ko dóor loolu tontu naa ci depuis le début loolu laa commencé looloo war a live bi. mësoo ko dóor mësoo ko offensé mësoo ko verbalement mësoo ko ya yóoxu wala mësoo ko saaga. waaw kon jéena ba daal kon dof la rek bu taxaw di dóor boppam ci miir yi wala di di xaru wala di def lan man li jaxasoo na yow tamit Alioune il faut que nga na ñu nga wax ñu li am expliqué ñu gënul que affaire bi di gën a compliqué. man li gën a sedd ci yow laa lay wax de mooy nga annulé sa plainte bu dee nag harcèlement attan nga ko wala coowu Sénégal attan nga ko bala waxu Sénégal ah réew maa ngi noonu yaa ngi noonu internet a ngi noonu toogal di expliquer ak naan damay toog di xaar dañ may kii dañ ma harcelé wóoru ma ni su ma ko baaxee dina lii su génnee ci kaso bi daf may gën a sonal wala lii wala c'est amoo kenn koo mës a yónnee message di ko doxaan wala di ko waxante wala ngeen di calomnier wala c'est pas jamais mais waaw. yaa may dégg. yow rek laay bii ma takkoon. waaw. te suñu sëy tas le douze euh, mai. Mm-hmm. ci ci ci ci Twitter bi laa ko xamee woon. ci mm-hmm. Twitter bi laa ko dragué woon. yaa ngi mm-hmm. may dégg. bu baax. dama ko deem ñu deemante ba keroog mu may mu jox ma numéro am ba keroog ñuy gisee. dama ni. ah oui dañuy deem bu baax. dañuy waxtaan bu baax di jokkalante di waxtaan di xaqataay. di ak ñeneen ak ñeneen ak mu ne xale bi malade mental la nañ ko yóbbu Dakar donc man ma ma ñibbi ma ñëw man ma ñibbi si Dakar ànd man sama yaay sama rakk bu góor ak sama rakk bu jigéen ñu dem Matam bi ñu nee maatam ba defal ko bagage ba pare mu woo commandant mu woote police woo gendarmerie gars yi ñëw bi ñu ñëwee les autorités noonu laa ko mën a woowee moom ak moom moom ak samayaay moom ak la petite ñu toog si bureau waa ji négocier ñu wax bokk ñu waxtaan fekkewu ma ko man xaw ma lu ñu wax mais daal il s'est avéré que commandant gendarmerie bi moom moo jël responsabilité ne nañ fa bàyyi xale bi waa ji dafa juumoon ainsi de suite donc sama yaay d'accord ñu bàyyi ko biñ ko fa bàyyee di dem ñibbi toog Touba di ndogu la ma commencé envoyé message mari je pense gis na message yi wala xaw ma ndax yónnee naa Koupa mu ne ma commencé di saaga mene ko man góor laa quoi du ma saagante ak yow bés boo buggee ma ñëwaat maatam rek dóoraatal xale bi mu ne ma soo buggee xam lu may def sa rak kaay fanaan fii tey si guddi bi ma ko bi ma bi ma envoyé message boobu ma won sama yaay message ma ko mère gis nga yéen a tax xale bi toog foofu noonu lépp lu ko dal après yéen la mm-hmm. donc sama yaay wax ko xale bu jigéen bi donc xale bu jigéen bi moom pour peut-être am garantie de waa ji du ko def dara si la ko bàyyi ba muy sangu mu vidéo ko loolu kese la amul viddu daf ko euh, amul vidéo bu mu publier si internet wala vidéo bu mu def feneen wala dara daf ko bàyyi ba muy sangu rek mu video ko ne ko faal tey jii boo ma defee dara wala len man tamit ma publier sa vidéo coow li loolu la te hmm. vidéo bi vidéo bu ñu def vingt cinq mars deux mille vingt quatre la lendemain élection daf ko deful tous ah, man je sama sœur amul 4 millions yu mu fay bu nekkee fay dafa am man maa koy fay man su ma naree fay 4 millions euh, doom xaram boobu noonu wallaahi ma dem tëdd. non dara laa dafa leer maa ko wax fii publiquement lii lañ ci wax. ñëpp wax ñëpp wax mais su ma naree fay 100 francs